mboolem xeloo kon rek mu doy ngeen xam ne lislaam dootu fay buur yàlla bi ñu sàkk mooy ki ko sàkk muy leer ba tey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 qaala taala wa ida jaaka alladina yuminuuna bi ayatina faqul salaamun aleykum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu gannaaw loolu mbokk yi incha allah dañuy ziaraat mbokk yi di leen nuyu di ñëwaat ak yéen seen émission ci li nga xamante ne moom mooy aalamul jinn wa shayatin aalamul jinn wa shayatin muy mondu jinn ak seytaane yi mu nekk ab monde bi nga xamante ne ñu nag ñoom ñoo bokk fi nga xamante ne foofu lañuy nekk muy jinne seytaane yi ñoo bokk ci planète terre bi nga xamante ne ci lay nekk mais yàlla si borom dafa def ab kiiraay suñu bët ak ñoom ñoom ñoo ñuy gis mais ñun nag duñ leen gis waaye nag ñoom dañuy jëflante ak ñun ñun tamit dinañ jëflante ak ñoom ci yenn kaay moo taxoon ñu daal tijji li nga xamante ne mooy monde jinne ak seytaane képp ku ci bëgg xam lan mooy jinne ak ay mbiram yi nga xamante ne dina ko def soo lañu toppee ci aalamu jinni wa shayatin di mën a xam yu bari ku leen koy defal nag mooy seen mbokk ci yàlla di ab seen ndongo daara mu Ibrahima Diaw tey na incha allah mbokki yi dañu tijjiwaat beneen bunt ci aalamu jinni wa shayatin te bunt ba moom mooy anwaaul jinn anwaaul jinn mooy façon jinn yi mbokk yi jëloon nañ li nga xamante ne mooy alfarqu bayna al jinn wa sheytaan wa iblis lan moo séparé diggante jinn ak sheytaan ak iblis tey nag incha allah dañuy jël li nga xamante ne moom mooy anwaaul jinn façon jinn yi ndax jinn yi ay façon yu bëri lañ wala ñoom benn façon rek lañ comme doomu aadama ni mu nekkee benn façon bopp ñaari loxo ñaari tànk hmm, am gémmiñ ah bët ñaari nopp noonu la ñu xamee li nga xamante ne mooy doomu aadama mu nekk nga xamante ne dafay taxaw di dem di ñëw jinne yi ndax ñoom façon boobu lañ su fekkee li nga xamante ne moom mooy façon jinne yi nag ñu xam ne jinne yi dañu uteeg doomu aadama yi dañu uteeg li nga xamante ne mooy doomu aadama yi comme nu bàyyi may uteeg li nga xamante ne mooy doomu aadama yi waaye nag jinne yi lu ñu ute seen ay façon ci wàll mbind yént bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko xibaare moo ko leeral yént bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ci xadis bi nga xamante ne xaakim solo na ko ak bayhaqi ak ki nga xamante ne mooy tabaraani ci xadis ki nga xamante ne moom mooy abi saalaba alxashani qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam aljinnu salaasatu asnaaf nisfun lahum ajniha yatiiruuna fi lhawa wa nisfun xayaatun wa aqaarib wa nisfun yaxiluuna wa yazanuun ci xadis bi nga xamante ne xaakim solo na ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jinne yi ñetti façon la ñett ñetti façon lañ mu ne am na ci façon jinne yi nga xamante ne ñoom dañu am ay laaf hmm? lahum ajniha la yonent bi wax ne dañu am ay laaf yatiruuna fil hawa dañuy naaw ci jaww ji kon loolu noonu ci façon jinne yi lañ bokk mooy am na jinne yi nga xamante ne dañu am ay laaf di naaw doomu aadama nag amul laaf beneen bi tamit du naaw kon foofu ute nañ foofu noonu beneen bi mu ne am na ci beneen façon mu ñaareel façon yi mooy ay jiit lañ ak ay jaan am na ci jinne yi xamante ne ay jiit lañ ak ay jaan hmm? booba ñaareel façon bi ñetteel façon bi nag yi sax nee na ñoom nag dañuy feeñ di nëbbu maanaam ñoom dañuy dem di di ñëw bi maanaam pensa dañuy soppaliku leneen pensa ñu nëbbu pensa ñu feeñ pensa noonu lay mel bi maanaam am na ñi nga xamante ne si ñoom day mel ni comme ñun ci ay façon mais dañuy dañuy soppali ko pensaay moo tax pensaay ñi nga xam ne jinne ñi nga xamante ne dañuy fa di jommal nit ñi pensaay yooyu lañuy def di soppaliku pensaay ñu soppaliku nàngam pensaay ñu soppaliku nangam façon fekk ci jinne yooyu lañ bokk yi saa su ne façon jinne yi ñett yi ni ñoo ci am façon yooyu noonu nag su fekkee bu njëkk bi mooy yi nga xamante ne dañuy naaw yàlla si moom junj na ko ci biir alquran yàlla dafa wax ne ba'da a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب صدق الله العظيم yàlla dafa wax ne ñun ñoo taaral asamaan ci ay li nga xamante ne mooy ay biddéew waaye nag ñu def ko mu nekk li nga xam ne dafay sàmm di di di wattu bépp seytaane bu féeteerlu mun a ñoom lu ñu dem ci kaw asamaan yu kawe yi lu dul ne dina leen sànni li nga xamante ne moom mooy ay jumbu safara foofu noonu dafay saxal ne li nga xamante ne moom mooy ñoom mënuñu dem ci kaw asamaan lu dul ne dañu amoon ay laaf waaye nag ci beneen xadis yi saa sallam melal na jinn yi na ñoom dañuy teglante def yi saa sallam daal def li nga xamante ne mooy baaraamam bi nii kii day ñëw taxaw kii yëg ci kawam ba ci kaw asamaan su ko defee ñuy déglu information yi nga xamante ne malaaka moom lañ jokkalante seen seen biir moo tax jinne ci sootul jinne ñoom ñoo wax ne wa anna lamasna as-samaa fa wajadnaaha fa wajadnaaha muniyat xarasan shadidan kunna naquudu minha maqaacida lis faman yastami alaana yajid lahu shihaban rasada sadaqallahu alazim yàlla dafa wax ne jinne yi nee yi ñun de daal nañu toog ci kaw asamaan di fa dem hmm, su ko defee ñuy toog foofu noonu di déglu ay information léegi nag ku fa dem di déglu dañ lay sànni ay jumbu safara kon jinne yi dañu doon yéeg di dem am nag beneen nag bi nga xamante ne ah li nga xamante ne mooy jinne yi dañu am ay li nga xamante ne ñoom dañu nekk ay jiit ak ay jaan ci bi nga xamante ne mooy xadisu abi said yént bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati nafaran min al jinn qad aslamu fa man raa cheyan min hadihi al awamir fal yuazinhu salaasan fa in bada lahu baadu fal yaqtulhu fa innahu cheytaanun ci xadisu muslim isa nee na li nga xamante ne moom mooy fii ci Medina dafa am ay jinne yi nga xam ne dañ may fa di ziyaar si dañu fiy fa di ñëw te dañ dañ te ay jullit lañu tuub nañ parfois dañuy ñëw soppali ay jiit ak ay jaan waaye nag képp ku gis ci mbir yooyu noonu ci mbir yooyu noonu dara mooy di gis ay affaire yu soppaliku ci biir dëkk yi wala ci néeg yi na ko daal ah affectueuse affectueuse maanaam na nga ko daal di koy ah wax na ko génnal fii boo mat ñetti yoon waaye nag su fekkee bañ na génn mooy ne na nga ko rey ndax loolu noonu seytaan la beneen façon bi nag mooy ñi nga xamante ne dañuy fa di feeñ ak di nëbbu kon mbokk yi ñetti façon yooyu noonu ñoo am ci jinne yi jinne yëpp ci façon yi lañu bokk imma ñu am ay laaf imma ñu nekk ay li nga xamante ne mooy yeneen am ndax am na sax beneen xaddis yi sax dafa xam ne ak xaj jiit ak jaat ak li nga xamante ne mooy ay xaj te dañuy faral di nekk genre yooyu noonu kon mbokk yi soo leen soppee ci aalamu jinne wa shayatin di ngeen ci mën a gis xam li bëri li nga xamante ne mooy ci aalamu jinne wa shayatin wa jazakum llahu xayra assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu boo leen xel kon rek ngeen xam ne lislaam dootu fay buur yàlla buur bi ñu sàkk mooy ki ko sàkk def muy leer ba tey xam ngeen